Kayar moo tax démb mbir mi tàngoon na jër mën na la yàlla baax nappkat yi dëkk Kayar journal bi nee dañoo song nappkat yi nga xam ne ñoo dëkk Gendar te dëkk ci gox boobu di Kayar daal yàq li nga xam ne mooy seeni gaal ba pare taal mbooleem li nga xam ne ay matériel la jëm ci wàllum napp yéen kay gi nee na nappkat yi nga xam ne ñoo dëkk Kayar maanaam li nga xam ne moo leen merlo ci nappkat yi dëkk Gendar ak napp ci yi nga xam ne ñoo di defal affaire lakk leen loolee moo leen métti journal bi nee na ñoo xam ne jamono ji teg nañu leen loxo am na kenn koo xam ne ñoo ngi wax sax ne maanaam dafa daal di faatoo yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu njiitu mi di président Macky Sall daan nay annoncé li nga xam ne mooy ab conseil présidentiel boo xam ne danañu ko amal def ko ci lu jëm ci wàllum napp ge nee na tamit ji maanaam mënatu la ñàkk pêche artisanale bi ñu la xëy duñu xibaar naa ñu bu ñu waxantee dëgg maanaam wàllum napp gi ci Sénégal anam bi nga xam ne moom lañ ko yore anam boobee moo baaxul lu jëm ci wàllum licence de yi jamono ji war nañu ko lijjante yéenekaay gi di enquête nee na leneen li nga xam ne moom la ñu war a lijjante mooy mbirum arme yi nga xam ne moom ngeen doon dégg 45 milliards ci ministère bi ñu dénk ko wàllum environnement loole la ñu war a lijjante ndax ci 4 avril bi nga xam ne gars yi doon nañ défilé nga xam ne ñooy agent yu parc yi gis nañ leen défilé bi nga xam ne moom lañ doon défilé waaye gisuñu leen ak ay arme yoo ne arme yu yees la ñi xam ne ñooy agent yi jamono ji nag ñoo ngi sako matériel yi nga xam ne moom la ñu jënd ci quarante cinq milliards ana matériel yi ana matériel yi loole la agent yu eaux et forêts yi jamono ji di laaj ndax xam ngeen ne ay weer si ginnaaw doon ngeen dégg ñu ne quarante cinq milliards la ñu jël daal di jënd ay matériel ci ministère bi ñu dénk wàllum environnement lu ci mel ne ay citerne ay camion ay bus ak ay pick-up ak ay ambulance loole la agent eaux et forêts yi ak agent parc yi di laaj journal bi nee na li nga xam ne laaj mooy matériel bi nga xam ne moom la ñu wax ne moom la jënd quarante cinq milliards maanaam fan la ñu ko yóbbu yéen a Walfadjri nee na fan la ñu ko yóbbu arme yooyee loole la journal bi di Walfadjri moom dim xëy di laajte ginnaaw bi ko enquête laajee ba pare journal bi nee na défilé 4 avril bi gis nañu agent eaux et forêts yi maanaam ñi nga xam ne ñoo liggéey ci eaux et forêts yi seen défilé bi maanaam géeyoon na lool géeyoon na lool ñi nga xam ne ñooy agent parc yi ak agent eaux et forêts yi ci 4 avril bi ndax ñoom gisuñu li nga xam ne mooy matériel yi nga xam ne moom la ñu waxoon ne dañu koo daal di jënd yéen kay gi di la sa xëy wax mi nga xam ne démb ci conseil des ministres kenn gisul conseil des lan moo ko waral journal bi di bés bi nee na Idrissa dafa wax Yankhoba Diattara na ko yow Amadou Ba premier ministre daf laa recevoir te waxoo ma ko Yankhoba Diattara na ko Amadou Ba li tax mu recevoir ma loolee dafa jëm ci wàllum gouvernement bi ak liggéeyu réew mi yéen kaay gi di Direct News xëy xibaar naan ñu candidature Idrissa Seck 2024 demoonu ci daf ko daal di dàq te Yankhoba moomee ànd ci Macky Sall sampan dëndam journal bi yu bare bare di teg ci ki nga xam ne mooy Macky Sall waaye nag Idrissa Seck jamono ji bu njorte ne mën naa nekk candidat Benno Bokk Yaakaar ci élection ma ngi nax boppam Idrissa Seck jamono ji nag bu nekkee candidat 2024 ban lay wax askanu Sénégal journal bi de Le Quotidien nee na Idrissa Seck jamono ji dafa nekk ci jafe-jafe li tax mu ami jafe-jafe mooy Macky mi nga xam ne dafa noppi ci mbiri Idrissa Seck maanaam piisu ko taasu ko yéen kay coalition benn bokk yaakaar ñoom nag rafetlu nañ ko bu baax a baax quotidien yor yor xëy duñu xibaar naan bi ñoom waru ñoo wuy ji appel bi nga xam ne Macky Sall def ko ci lu jëm ci wàllum dialogue ndax Macky Sall dafa dal ci kaw opposition bi ba xolam sedd tey mu bëgg leen a woo dialogue na opposition bi lànk nañu moytu piège nga xam ne moom la leen di Macky Sall di tegal maanaam dëgg sërëx yi leen di tegal loolee opposition bi dañu ko war moytu ndax Macky Sall jamono lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat rek moo exceptionnelle liste électorale yi tey jii ci alxames ji la commencé yéen kaay gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa Birame Sène bu direction générale des élections nee na ji maanaam lépp yemb na ñu commencé opération yi yéen kaay gi di Direct News di ñu xibaar naan ñu ak suukar su mangi lu toll ci vingt mille tonnes suukar soo xam ne jamono ji dugal nañ ko ci marché bi yéen kaay gi di Les Échos xëy ci fonds Covid 19 maanaam xaalis bi nga xam ne m yoo xam ne ki ndëng te yoo xam ne doy na waar bi ñu dénk wàllum sport di nga xam ne moom la ñu feeñal ci ay ndëngte yoo xam ne maanaam def na ko ci mbir mi ndax fay espèce goo xam ne toll na ci cent millions yoo xam ne maanaam liquide liquide kaas kaas te loolee dañu koy tere journal bi nee na Gris nga xam ne nee nañu jox nañu ko lu toll ci fukk ci million pare daal di bind quinze millions SAERSEC bu Ligue Pro maanaam ñu jox ko lu toll ci cent millions ba pare falsifié ab signature am journal bi en tout yi Ngom ñaa ak doxalin nga xam ne moom la ci doxalee muy doxalin woo xam ne doy na waa waar lool yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu réew mi quotidien niki démb dafa daal di bindoon ci à la une ma wax ne réew mi dañu ko daal di coupé ba Babacar moo ko coupé ci anam boo xam ne dëppawul ak yoona loole nag waa Sénéra ñoom démb daan nañu siy tonto nee nañu ñoom coupé wuñu benn signal journal bi di réew mi quotidien nee na ñi nga xam ne ñooy waa Sénéra ñoom jamono ji dañuy jéem a maanaam salteel nag jéem li nga xam ne réew mi ko démb ci signalu réew mi TV bi nga xam ne moom la ñu coupé waaye nag loolee du jàll ndax waa Sénéra ci seen biir weddi société bi dañu see mujjee réera ndax sénéral ñoom nee nañu coupé wuñu signalu réew mi TV waaye dañoo wax ñi nga xam na ñooy waa Excaf Télécom ñu daal di retiré réew mi TV ci seenu bouquet incohérence boo xam ne am na ci réew mi TV nag ay yooni yoon yoo xam ne daan nañuy saisir waa sénéral ngir nag signature convention boo xam ne jëm na ci wàll wi waaye nag boobee ba léegi mbir mi sotteegul yéen kaay gi la mosa ama ndax bloc opératoire ba dara baaxu ca maanaam nañu yore baaxu ca ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi jamono ji li ñu bëgg mooy direction générale ba ñu daal di ko fay jëlee ndax hôpital Idrissa Pouye budget neuf milliards la waaye opital la boo xam ne bu xaye di la laas yéene kaay nee na ñi nga xam ne ñoo feebara difa dem sax jamono ji dañuy am ay jafe-jafe ngir defar ay opération yéene kaay gi di sunu làmb xëy di ñu xibaar naan ñu combat bi nga xam ne moo war a dox diggante Modou Lo ak Boy Niang soo muy tuulee Modou dina ci am avantage bu bare bare ndax combat boobe nag dafa xaajale ñi nga xam ne ñooy waa ndax Modou Lo Ama moo ko njëkkoon a jël